tey jii nii bu ngeen sebi Sébikotane yëpp ñoo genn goor mak ndaw gox relais imam le délégué de quartier les gens de la mairie sont aussi ici donc tous ñom ñëpp ci ben wax la ñu wax setik fi sebi parce que setik fim jaar modul yoon d'abord euh, acte administratif biñ ko jox jaarul ci délibération donc puisque jaarul ci délibération fofu la wax ji waron yam

ay batterie ay portable donc ay yoo xam ne baaxul ci dundu doomu aadama day yàq euh, gàncax gi day yàq jaww et day feebarloo nit ñi d'ailleurs boo xoolee fii et surtout gis ay feebar yu yu di fi law parce que usine ñoo xar mi nag kenn du nangu ñu yokk ci karaw li ñuy li ñuy li ñuy dal ak Fabrimetal mënuñu nangu leneen ñëw dooleeku li garaaw aussi li garaaw aussi mooy CETIC ñu ngi ko implanté à gar ci wetam am na ñaari école yoo xam ne boo boolee élèves ya fa nekk am entre juróom ak fukki at ak juróom benn fukki at ak juróom ñaar man nañ junni ak ñaar téeméer xale yooyu bu problème amé ñom sax duñ mëna jël seen bop en charge mais li graw aussi moy xalé yo ñi ngi commencé di ci gis ay fièvre ci ñom ay ay sëkkat ak yenen pathologie yo xamné saxar ci ak yoy ñokoy ni lool nak bu amé mëno jël usine bo xamné ñepp d'accord nañ ne déchets yi traité déchets yu bon a bon la nga ñew implanté ko ci gox bo mel noonu gox bo xamné sax légui terre bi da ko tejj bu fi musibe amone nit ñi sax duñ am fuñu jaar benn buntu rek moo fi am te loolu loolu lu graw la moo tax ñuy wax autorité yi commencer comme ci une première autorité le maire Lui, du combat politique combat pour Dundu ak ñàkk Dundu. dund la dund ak nous, a choisir Dundu comme ñëpp donc vraiment te ñi fiy implanté une usine. amul kenn ku donc vraiment mairie autorité étatique yi waruñu ce sëtik parce que sëtik xaalis lay wut ñun ñuy ut wax